gis nga kër gi ñu ko bokk ma ak yow maa xëy di jàkkaarloo ak yow xam nga foo jëm ca sa maam. Fatou ne mënul woote njéeréer ci boppam góor ñëpp daw song ko mu def asaaloo aso bombe boppam ba biir amul xamul kuy bàyyi doom mu jëñ la ko ngan da ngaa nangu. waaye yaay gis gàcc yow xanaa xamoo man réussir examen jigéen ñu bëri ngi toog fii di fay ay millions pour mën a am doom yaay amuñu ko man ma ëmb sama ëmb bii yow loolu waroo maa félicité. Fatou ne catu ngeen ko ba xaw dof.

ëmbal bi nga ëmbal xalé bi muy kinné jarul souffrir parce que ñëkke woko fi té mu jé woko fi eh yow mbébé ay ko léegi de xam naa né mom ëlëm na ay wéjuram ëlëm taxawaalu ba perte bir ci àll ba ñëw kuñ ne la kii la ngand ko mm, mm, du ki ki ké la vas-y non kon kay nañ leen waxtaan rek moo gën ah. nañ leen waxtaan rek lu waxtaan ko dégg taaj taaj lu ñuy waxtaan nañ waxtaan rek non du yow boy nday liggéey na ba tekki mhm. yëgu ca dara waaye nday liggéey na ba doom ja ko te yëgu ca dara moo dal kii kii gis nga xam naa ko gis bu ngeen nekkee fayda ba bu doon baayu xale bi eh, eh, kii xaaral xaaral xaaral xaaral ma dem vaar mu ne vaaru la vaar vaar vaar vaar yow Lamine yow jëndal yow nu yéegi waaw danga danga ne moom ay kii shawarma parce que jour boobu dangaa amoon estomac nga ne mën naa la jëndal fonde. waaw sucré nga ma jëndal waaye lan moo tax nga naan.